xamal ni kooku ku mel ni moom néew ni ci jamono ci taali bi bàyyi bàyyi bayal nañ ko tool tool wa ca tay bañ a seen mu toog di leen gërëm ci biir ngërmande gi mu ne leen yéen suñu leen laajee bésu pencum yàlla lu tax ngeen nekk taali bi bàyyi lan ngeen di wax bàyyi moo posé question gars yi noppi tontu wuñ bàyyi ne buñ leen laajee lu tax ngeen nekk taalibe bàyyi nee leen dañoo gis alhaaji Mouhamad Zeynabou Niass nekk taalibe bàyyi moo tax ñu nekk taalibe Cheikh Tidiane soo ko toppee def ko muy sa sëriñ ngir lan ngir Ibrahima Rayahi ak Tunisi rek nekk na taalibeem rek loolu doy na Ibrahima Rayahi ci jamonoom kenn gënu koo xam mazhab Malik ci ulamaawu Malik yëpp amul ku ko raw ci xam-xamu mazhab Malik mu daal di bàyyi loolu yëpp topp Maolana bàyyi ko def ko indaale fekk ko fa encore topp Maolana Cheikh Ahmed Tidiane Baye Niass suñ la waxee kenn nekkul taalibeem ku dul Aboubacar Atiq te ndax Aboubacar a ci ci xam-xamam ji bëri gu te gis nga xadir xadir lim da lim da danaa ñëwaat foofu mais Aboubacar ati moom moo taali téere eh, eh, dawaawin sitt bi ngeen gis nii ngand la ca Nigéria mais moom am na benn benn téere bu mu di ci wax masalatu jawharatul kamal jawharatul kamal suñ koy jàng fukki yoon ak benn lañ ko daan jàng jamono bu njëkk ci eh, ci dund Maolana Cheikh ci njëlbeen gi bañ démé ba ci mujjantal dundu seex ñu koy def fukki yoon ak ñaar lool mo tax borom munetul murid di wax wa fi xayaati cheikhina qad zadu wahidatan fa zaiduha sadaadu moy wax ci loolu ba indi ci waxu baay ci téré bi ba indi ci loolu waxu baay pour nga xam kuy baay dëgg-dëgg baay dañ ko la benn masala ci tarixa bi mu indil la mu tontu la indil la ay adilla ci waxu borom xam xami ci biir tarixa bi yépp ba mu wóor la ne kii la muy wax teg na ko fu wér ndax indi na ay adilla ci waxu borom xam-xamu tariqa yi mais léeg-léeg mu tontu la mu ne la wa haza min nii lii ci man laa ko jëlee sama bopp jëlewu ma ko ci benn téere nga xam ne ne ko ma faaltuhu an amri googu xadir waxoon moo ngi jëlee ilham rabbaani bi ci yàlla mubasharatan ndax xadir xëy na moom wax yu la waaye kii ilham la qad inqata al waxyu bi ittifaaqi lakinahu yabqa tawfiq wal ilham ma dem ci fuuta dajefaat sama benn xarit sama wóllëre jàngal na ma sax benn téere bu tudd laa nekkul afqaal borom xam-xam la macha allah jeexal téere yi dem ci benn daara foofu ci benn sëriñ ci tarbi tarbi boobu muy tarbi na xëy na bokkul ak suñ tarbiyu yi ñin ñi ndax ñun tarbi yi ñuy def pour xam yàlla mais xëy na moom tarbiyu doon def pour am barke la liggéeyal si sëriñ toggal ko dem di taxa ñi def rasta di dëbb di def lu nekk tarbi boobu la doon def boobu baax na soo ko defalee sa sëriñ yàlla dana la fay dana la bindal barke inna allaha laa yudii'u ajral muhsinin waaye du la tax a yegg yàlla su nekkee ni sa sëriñ bokkul ca gaale nga xam ne ne kete man ma laaj ko fekk foofu muy tar bi mu def rasta di taxañi di dëbb ma laaj ko ak ni mu amee xam-xam macha allah eh, looy def bi mu ne man de pare naa jàng damay tar bi ma ne ko tar yi mu ne waa ma ne ko tar bi pour xam yàlla wala la mu ne ah déedéet pour xam yàlla waaye ne sëriñ bi léeg-léeg faral di jox téere góor yàlla yu mag yi téere góor yàlla yu mag yi léegi def ñu koy jox ñu koy liir pour xam yàlla léegi nag ma ne ko ah, loolu de am na solo est-ce que téere bi ban téere la leen di ak ban façon téere mu tudd téere Aboubacar Atiq al-Kashnawi Aboubacar Atiq taale baay boobu nga xam ne moom moo taaliq euh, Dawaawin Sitt te kooku kenn la ci ngand Baay Ñas yi nga xam ne ñoo nga ca Nigéria kenn mën leen lim borom asaabi wasaahi wasaari ca ginnaaw may dégori mooy Ibrahima Rida kenn ku nekk xam na maxaamam ak balaa moo gis Baay ni mu sonnee comme que saaku mboq la doon teg saaku mboq. di jàng saa fati jël benn pepp ndox ku teg fi su saaku bi jeexee mu salaat ko tàmbaliwaat pour yàlla won ko ku koy xamal yàlla ba mu toog ci àll bi yéeg ci benn garab di xaatir ci yàlla wax Moussa yaa Moussa innani ana Allah eh Moussa man naa yàlla di wax ak moom ci làmmeñu safara ci kaw garab gi muy xaatir ci loolu nan la yàlla mën a waxee ci ñu safara di wax man naa yàlla te safara gi du yàlla garab gi du yàlla safara gaa ngi ci kaw garab gi garab gi lakkul muy wax yaa Moussa innani ana Allah nekk te bàyyi jaar na fa ne fes ci jaww ji rek ne ko fekk ma Kaolack ma xamal la loolu. ginnaaw bi nga xamee ne ginnaaw bi nga xamee ne def na ay saaku mboqam ba sonn ñu xam ne ndeke ku liggéey pour yàlla yàlla nangul la. te na gis yonent yàlla Muhammad yonent bi sol jampul moom moo ko nettali yonent bi sol jampul ba mu ñëwee ci bàyyi bi mu njëkkee gis bàyyi jampul boobu la bàyyi sol nga gis eh, ndek ndekete waa ji ma laaj ko ban téere mu tudd téere waajooju Aboubacar Atiq al bi kenn ci ngan yi nekk ci Nigéria macha allah balaa ngaa xam Baye Niass dëgg-dëgg fexe yegg foofu nga fekk ñi mën a yëlif àdduna ñoo ngi mébét pour nekk poussière bi nekk ci dàll Baye Niass. bu barak tura bi waxuma la dàll bi mais nekk ci dàll Baye ko mënoon nekk rek sant yàlla. naam mu wan ma téere googu ma yéemu ci yàlla ma ne xoolal fii ci école bu mag bii ci biir Fuuta réewu xam-xam bu rëy gii macha allah ay wali yàlla yu mag yu toll nii waa jii day tarbiyu sëriñam daf koy jox téere boo xam daf koy lii pour xam yàlla téere bi ki jàppee boppam ki gën a tuuti ci taalib Baay moom moo taalib téere bi mais nan laay def ba gëmloo ko lii nii ki ko defar du Baay de taalibe Baay la pour ma gëmloo ko ma ne ko est ce que ndeysaan moom gaañu ne yàlla ko yàlla yi def ubbi na daara borom xam-xam la macha allah foofu ci Fuuta sama wëllër la sama xarit ma ma ne ko est ce que Cheikh Abdoulaye est ce que Abdoulaye la tudd est ce que xam nga ne téere bii nii taalibe Baay Ñas moo ko defar mu reetaan mu ne ma laa yaa réer kii nii man na jàngal bàyyi ñës kii nii waaye di na jàngal bàyyi ah ma ne ko ah ndekete yow am na fu ma yàlla di xettali am na fu ma yàlla di xettali may waa ji tudd na bàyyi ñës ci téere bi te dafa am lu mu ko tuddee soo ko gisee da ngay xam ne laa ma xaalata ann haga yaskuru cheikhaw kii sëriñam lay wax ma ne ko nañ dem ci biir téere bi ma xool may liir ba dajeeg masala bi mu yow masala jawharatul kamaan bu njëkk ba fukk ak yoon ak benn lañ ko doon def fukki yoon ak benn mais léegi dañ koy def fukki yoon ak ñaar léegi nag lu indi fukki yoon ak ñaareel bi lu ko indi loolu la doon wax mu ne ñee nee nañ dañ koy dañ ko indi pour matalee ko ñee nañ dañ ko indi pour ñaan borom xam-xamu tarixa yi mu indi wax ñu bëri ba ci yàgg mu ne nag mu ne nag waaye sama sama sëriñ Seydi Ali Cissé la wax Ali Cissé yaakaar naa benn waaye la rek fële ci mbedd na bàyyi كاتب سري ولا خازن سري كاتبي لتزيين مدحي قد على كل فائق باين يسنير علي سيسي موم على قوينة كل فائق كيف كراو وقل راونا لدفن قوينة كيف كراو نيراو نيراو باين علي سيدفع جل تانكم دبشي موم ولي الله نيوكو دم خطيو تي غيب مو باطر لين موم باين نانو علي سيسي كومي باو حدر واجي نيري سين علي سيسي نيري جوخنا ما جوخنا ما بند باين يسي Baye Niass di wax nee ne fukk ak benn ñaareel bi li ko indi mooy musiba su naree wàcc ci mbindeef musiba su naree wàcc ci mbindeef ruuxu wali yàlla yi ñooy absenté fàttu dem capté musiba bi woyofal ko ba mu woyof ba su wàccee ci mbindeef bi du lor adduna bi loolu alquran a ko saxal walaw laa dafkullahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadatil ard alquran neen su nekkuloon li may jël ñenn ñi di leen défendre ñenn ñi konoon adduna bi yàqu na iza nazala albalaa bi ardi qawmin وكان الصالحون بها تلاشا فإن الله عظمهم وحاشا يعاقب من يجاورهم وحاشا waykat bi neen su musiba naree wàcc ci réew mi ida nazala balaa bi ard su nekkee nañu baax ñaa nga fa telaasha musiba bi day effacé wu fa inna allaha addamahum yàlla màggal na góor yàlla yi ba du mbugal ku dëkk ak ñoom yàlla màggal na góor yàlla yi dama yeggal histoire bi daanaka pare naa dama yeggal rek maa ngi baalu ak liñ kaaj sëriñ yi jotaay bu yàgg gi waaye ma yeggal histoire bi rek après mu nekk miskalil xitaam incha allah euh, su musiba naree wàcc bàyyi nee ne ruuxu wali yàlla yi ñuy absenté capté ko woyofal ko ba mu woyof ba su wàccee ci mbindeef mi day woyof booba nag loolu nag moo tax ruux bañ jàngee jawartul kamaal fukki yoon ak benn ruuxu Cheikhu Tidiane yi daal di fàddu pour capté musiba bu doon wàcc ruuxu Cheikhu Tidiane moo fàddu pour capté musiba bi doon wàcc ndax mooy xatmul wilayati te wali yàlla yi njëkk yi daan wax loolu Ahmadul Badawi nee ni ij'alni saqfal balaa yàlla nag ma def may balcon buy capter musiba yi musiba bu nar a ñëw ci àdduna def ko muy dal sama kaw may balcon bi ah in kaana indaka yaa zamaanu baqiyatul yow jamono gi su nekkee ne dese nga luy war a lor nit nit ñi ci àdduna jullit ñi waa jëlee fa xaati yi këpp ko sama kaw xam nga wala lii daa mel wax loolu ru Cheikh Tidiane ruuxam fàddu pour capter musiba boobu ba muy dellu si waat fekk gars yi def nañ fukk ak ñaareel dañuy continuer rek lii moo indi fukk ak ñaareel gi bàyyi bi mu bind ci suuf wa haada min nii lii nag jëleewuma ko ci benn téere min nii maa ngi ko jëlee ci sama bopp man bàyyi nga gis ah, ba léegi moo xam nga temps bi moo gàtt moo fi waaye xadir buggoon naa firi nan la nekkee Baye Niass ndax dañ ko fekk mu sàngoo sër wu ñuul taxaw ci diggante ñaari géej fan ci wetu doj ga loolu ibaara la te yàlla def ne xamal abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman lii mbir mi mooy rahma ak ladunniya ak indiya ak ubud rahma ladunniya indiya ubuda ñetti maxaama la ñeenti maxaama la yàlla tudd ko abdan min ibadina mooy ubudiya aataynaahu rahmatan mooy yërmande min indina indiya maqaama la inda al aarifina billah wa aataynaahu min ladunna ladunniya maqaama la kon pour ñu firi ladunniya ak indiya ak rahmatu ak ubudiyatu loolu soo ko firee rek da nga fekk Baye Niass radiyallahu anhu mooy jëmmu xadir waaye temps bi moo ko xat moo moo xat ba duñ ko mën a yeggali léegi nag ba ma waxee waa ji ma ne kaay kaay kaay xool Serigne Ali Cissé xam nga Cissé moom Sénégal la kaay wala léeg-léeg ca ak wala yu mel ni Guinée ma ne ko xoolal lii mu xool waa ji mu ne allahu waaye waa ji ba muy indi ba muy indi wax ci def ne Serigne Ali Cissé jox na ma mbir sama mbindu Serigne Seydi Cheikh Ibrahima Niass sama sëriñ daal di xamne ne nekkete Baye Niass radiyallahu anhu mo nek fofu mo nek fi Jibril ñëw na ci pour jël wax yu ci yàlla mu fekk loxo ba koy jox wax yu loxo gogu moy capté wax yu ba ci yem ci yàlla Muhammad mu jaxlé mu ne Muhammadun huna wa Muhammadun hunaka فلو علم الأقوام معنى محمد حقيقة علم عظموه ومجدوا هيا الناس خلوا الحزن وقفوا محمدا وإلا ترون الدهر جد براي كون بايس هناك Baye Huna Baye Niass wax ak Seydi Ousmane Ndiaye ne ko waalam anni lam azal bihamdillahi fi tarbiyatika mundu sahartani lakinna tarbiyati bil himmati wal haaya mu ne yow xamal ne ba ma la xamee ba léegi ba jokkoo ba léegi maa ngi lay tarbiyu waaye sama tarbiyu man bil himmati wal haaya yitte ak xaal laay tarbiyoo nit yitte ak xaal loolu lu muy fii mooy Cheikh Tidiane ne man taxaqaqa bi xaalatin laa yaxloo minha haadiruhu nit su déggoo ci xaal boobu yàlla su déggoo ci xaal di dund xaal boobu soko koy jege rek di parce que day mel ni jaasibiya parce que kimia ya cheikh day rañaan ba ci xalbul murid kon bu boba bàyyi ne ko man sama tarbiyoog yow bil himmati wal hal la beneen incha allah mu ne bàyyi waxaat wa alaykum bi awraadi tijaniyati fa ni'mati, fa nicmat awraadu tarbiyati hiya wa alaykum bi dhikri وعليكم بذكر الفائدة التي حقق الله الحقائق الربانية في قلوبكم وأذاقكم المعارف الإلهية فتقدرون قدر هذه النعمة وتشكروا الله ولا تكفروه باي نسنا نينه خولنا واخو غور يالله جيتو ييب خولنا لي واي فك واخو جودول سي قدم الاولى موي سي بير يالله بو سل لي كسر لي واخ يغوني سي يوم سي يالله محمد يغوني سي شيخ تيجاني من وقت تتبعت كلام ارباب المعارف فما رايت كلامهم في سوى القدم الاولى التي هي ادنى مراتب الفتح عندنا من والحقيقه الثانيه والثالثه ما شموا له لهما رايه فكيف بسواهما من نيارل بن نيت من نيارل بن نيتل بي غور يالي جيتو يخنتو خيتو حقيقه المحمديه اخيتو حقيقه الاحمديه من فكيف بسواهما نك نك بنن حقيقه جيغا خامني مو نينتر حقيقه يوي دي مولانا شيخ عربي قال حقائق ان ادنى ان اقصى مرامي في الحقائق ان اراك كون بولو مي نيوغي لين دي نيوات في قلبا وقالبا في ظاهرا في باطنا ñoo ngi leen di nuyuwaat ci farbu ak ci jamu ak ci jam ul jam i di ci li ñu yàlla may mooy Cheikh Ibrahim Niass xéewal amul ci kaw suuf bu alhamdu awal da'wana wa axiruha walhamdulillahi min diin ilahi barhamu baun waraun alifun thumma ha